asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi diaspora bi laay waxal parce que diaspora bi dafa bëri ñoo xam ne may contacté na moom man fi ma nekk sori na na laa def ba jël sama maillot na laa def ba am blouson bi c'est c'est compliqué di wax ne am nañ ci expérience léegi mos nañu envoyé maillot fépp continent bu ne daanaka presque mos nañu fa envoyé Sénégal yu demee surtout Coupe d'Afrique bi passé xaw nañ ci am expérience Europe Europe moom c'est c'est plus facile xam donc ay GP nga ñuy boole wala yéen ngeen xam GP ñu ñu wala wala koo leen xam ko xam ne day voyager ngeen jox ñu ko ñu dem livrer ko mu andil leen ko donc prix des abordables, abordable dina leen arrangé té di ngén am qualité donc 77 352 31 01 wala ñi nga xamante bëgg def cachet comme ni mo def yow semaine sen maillot euh, Barcelone casquette Barcelone wala maillot Real Madrid casquette Real Madrid wala blouson Real Madrid wala blouson euh, Barça Atletico Chelsea Manchester United Arsenal yu démé non ak maa seeni maillot disponible au 77 352 31 parce que loolu ngén mëna jappalé sen Football TV yéen a ñuy dooleel na bu baax a baax ñu sant leen ci gërëm leen gis nañ sen taxaway mbokk internet tey conférence de de presse d'Eumo. ma ma rëccu ko nag rëccu parce que voilà quoi am na question yu mu doon yu amoon solo yu mu doon a posé yu xamante voilà doon na aider Aliou euh, maintenant c'est naa conférence de presse ba mu jeex def analyse liste euh, dinaa analyse liste bu Aliou Cissé euh, maintenant li ma nemmeeku ci ci si si conférence de presse bi dafa am lu xamante ah, sama copain nak sama c'est sama frère ma si biir na la may wax euh, man sama grand frère lak jappé tonton la sax ci man donc mom sama sax mën ma jur donc Aliou Cissé voilà sama gagne la waa maintenant nek nek sama gagne wala ko xamante ne jox naa ko cër comme cër bi ma jox téwul nak bu deug bu deug jotee damay wax man moom saa yi lébu laa bu jotté ni fi la may fekk. Je je peux pas comprendre à c'est Yvan Diouf mos mosul Yvan Diouf qui a bëgg Sénégal Je posé question ne pourtant Yvan Diouf wax ne dafa bëgg jouer Sénégal mu ne mos ko dégg man un problème pour moi. parce que lu c'est un problème mais on est sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal normalement ces critères da nga les meilleurs si possible, yëpp gardien de but les meilleurs sénégalais. défense les meilleurs Séné meilleurs défenseurs sénégalais en Europe u ici yow yaay xool fan la Sénégal fu mu nekk war nga ko luxati donc jamono bi mënoo ne yow yaa nekk sélectionneur mënoo xam Yvan Diouf mas na taxaw si benn télé wax na ne daf bëgg a jouer Sénégal wala si benn article wala je sais pas même boo ko xamul da nga war a am benn cellule de euh, technique je sais pas moi staff wala yu demee noonu.

ni you xam ñoomal ñoomal ñoomal seen yëf seen bopp du état de génération foot di jambar di Oslo centre yi sax école football parce que école football ba mu baax nam centre centre yi am après catégorie ku fédération liggéey catégorie non non c'est vrai que liggéey bien beau de dire ça tout ce qui est protocole tout ce qui est lu dans le passé quoi tout ce qui est dem am xel mu dal hôtel yu baax euh, lieu ñu y' a pas de souci mais quant à d'initier des jours man am naa si ay histoire yoo a wax xam nga da ngay ñëw ñii say mais bëri na ay joueurs ñi dañ ko ñàkkee. te Aliou Cissé sur xamul loolu même bu ko xamul dafa war a am ko ko war a wax ne que takk t'as trois bons gardiens na xamal ni wax na ko yow nag après nga def choix ndax da nga koy woo ko loolu beneen débat mais yow am information pour moi journaliste war la ko xamal parce que c'est la deuxième fois man mii Aliou Cissé suma sama première rencontre ak moom lii la woon Aliou Cissé Pape Gueye dafa Sénégal de pourtant wax na Canal de mu ne loolu Aliou non non Mohamed loolu Aliou kii Pape Gueye mësul wax loolu mais insister Aliou Cissé non non parce que c'est seetaanul émission oui et là a fallu journaliste RTS bi fa taxaw ne pourtant il a dit li mu wax dëgg la ah bon il a dit après ñun mu nekk mu pose ma beneen question nag mu nekk beneen débat mais Aliou Cissé dafa am information moi moo tax am cellule cellule bu xamante ne da koy ben staff bu nga ne yor toolu ndaw Sénégal nga yor Sénégal nga yor Sénégal Aliou Cissé joueur bu newoon Japon di toj on da ko war a xam maanaam c' des informations c'est pas à lui de toog sans match mu di ko seetaan ça Bielsa ça par exemple euh, mon ne bu la sélection day seetaan match yu ne fu ne mu dugg fa xool c'est pas Bielsa ça c'est pas c'est c' non mel noonu du philosophe maintenant que du sa philosophie mais autour de toi

li ma si tontu man bu fekkoon ne ma ne dama siy liggéey dama nekk si dossier dama dama naa lem samay bagage dem toog seetaan ni ñëpp parce que Sénégal aussi tamit parfois da ngay liggéeyal ñenn pour ñenn ëllëg dara bu si amee sax yow la ñuy attaqué parce que dañoo yaa fi waxoon li yaa fi waxoon li te yow li ngay def kat da nga koy defal pour lii rek da defal pour sa réew rek defaloo ko pour kenn da nga lay defal pour réew mi pour ñi ñi am ndam yéene lu baax Sénégal ku xamul toog si clavier am day ñëw na booy yow nangam bii na sunoo rek waxal ñu diw waxal ñu diw te diw yooyu di nga ko wax de mais duñ ko gis mën nga wax Amara Diouf fi ba suba duñ gis Amara Diouf yi nga def vidéo de wax nga ci kii ñu ne voilà booy bi gis nga bàyyi na fi Amara Diouf moo ngi wax kii alors que yow xoo méngaloo kii juddoo fii kii juddoo fële amoo am xooloo lool yow da xool rek pour intérêt de pays léegi li tax mu li mu li si si si booy boobu. ne kooku Espagne kii ne booy boobu pour vous dire information yu ñu ma jox leer nañu topp na si di daw. pour si Malick Daaf si il pour ñu U20 yi jël booy euh, booy bi ngeen ne Assane Diop Baaw Diop keneen Badara Mané ki mu nekk Brésil Malick Daaf moo leen wowul léegi xam nga laay bañ man ëllëg si biir d'ici cinq ans booy euh, football Espagne wala football feneen ñun Sénégalais ñu ñëw di leen dal di leen saaga alors que histoire bi mooy lan ñii topp nañ si ginnaaw si Sénégal ba sonn faalaw ñu leen léegi nag nañu waxante dëgg ki nga xamante ne da nga topp si moom naka ngir yàlla dama Espagne woo ma sama petite catégorie mais ëllëg si biir tey ji bu ma doon tànn Espagne na saa yi bu leen ma mere surtout que man bi may jógee Sénégal liir laa mais kii bëgg na jouer par des erreurs yu passé yi soxla woon nga leen ay Boubacar Kamara kaneen ak kaneen yu xamante ne noonu ko ñàkkee mais doo yeewu si mbir mi waa waa Barça lu tax ba pare ñu ne maa non xale la nañu bàyyi mu aguerrir waa Barça di teg Lamine Yamal nga ne maa na bàyyi mu aguerrir Lamine Camara kañ la football tout daaw fii la newoon championnat Sénégal moo ngi ñuy woo ko équipe nationale du Sénégal saa yi nu ñu waxante dëgg nag fi ñu woowee Lamine Camara muy football métti baax na avenir la mën nañu woo Assane Diaw Assane Diaw bokkoon si liste la comme ban Sénégalais mooy taxaw ne wow kii xale la koy woo kooku xanaa xamul football wala kii nii fii ak lii bu ko continuer bu mag bi la jëm ay xale xaw ma sekk si raad yi ñooñu woo Lamine Yamal nga yaakaar ne waa Espagne du ñu woo kii comme que bëgg na jouer Sénégal mais woo ko rek wala bokk yow boo buy tontu booy tontu tontu la ne man ban tontu laa d'accordoon moo tax man sama conférence de presse ndeysaan li tax dewuma man rëccu naa quoi li ma fa yóbbuwoon mooy Aliou Cissé Assane Assane Diaw wax naa pour moi Assane Diaw dafa bëgg jouer Sénégal U20 def na lu nekk bëgg bëggul ñëw kat woowoo leen ko nii nii bëgg na ñëwaat mais équipe bu mag bi la bëgg ñëw te boo ko woowul maa la ko wax Aliou Cissé dama la koy wax nga dégg day dem football Espagne te bu boobaa bu kii ku mën a football la c' est vrai que man nangul naa la équipe bi nationale am na concurrence ak ñoom seen mais football tamit dafa laaj stratégie nit bu saay bu ma jaaral si benn yoon ma pakasol si xeer bi suba ma ñëw lu mardi ma jaaral fa pakasol dafa ma neex dafa ma neex man damay damay tirer ay leçons du passé leçon du passé mooy lan mën na football yaa ngi gis ne kii saay baa ko boo ko bàyyee fii octobre lañ nekk ni mu daaneel ko novembre di def lii mooy day dem Espagne ñu waxate dëgg mu joué ay Ligue des Nations nga ñàkk ko mais loolu du stratégie wala xam nga laa bañ mooy Aliou Cissé voilà ni mu tontoo mooy kan kii kii ak ni mu football nga yaakaar ne espagnol nañ ko bàyyi ak ñun man loolu rek laa bañ. loolu fédération bi xam naa noonu la ñuy xoolee c'est malheureux quoi lu tax ñuy xoolee noonu boo gisee ku nekk Barça wala Real nga ne yii kuy moom sa ay bul sa xalaat la du ma xalaat lu baax. demal nga wax ak ñoom c'est que loolu mu encore une fois du ñu mës a wax ak nit ki bu fekkee ñun ñi nga amuñuy moyen connexion rek la yor di dem si booy di wax ak ñoom bu fekkee ñun dañu xam ne loolu amuñu si benn sens ngeen yaakaar ne man dinaa toog fi di sonal sama bopp di toog di téye micro di wax wax daa métti de mais dañu am fu ñu téye lu dëgër maanaam dañu wax ak ñoom li ñuy wax ne dafa dëgër dafa métti comme Aliou Cissé li mu wax ne kii Espagne ñooñu ñoom Seydou Ndour ak ñoom si Sylla booy yi nekk Sénégal yi xamante ne dañoo tàng ñu nekk ay Real ak ñoom seen dañuy dem wax ak ñoom ñu wax ñu lu leer ñu midi wax ak seen i mbokk wax ak seen i wax ak seen ñu wax ñu lu leer ñu mën a sañ am sañ-sañ taxaw fi parce que ëllëg dafa dafa garaaw de boo fu waxee loo te wax nit dina génn weddina booy bi mos moo ko wax dara ci àddina parce que ay milliers de personnes ñoo lay saraan looy wax na la leer dañ moo tax balaa ñuy téye micro bi dañu am lu leer soo ko taxaw fii di wax donc Aliou Cissé bul bul tontu na non kat kii waa Espagne nangam non non non jamais de la vie waa waa Maroc ñoo ngi topp si Brahim Diaz guddeeg bëccëg chaque chaque année ñu ne ñu chaque mois chaque sélection ñu ne ñu koy xaar Sofiane Diop chaque chaque mois ñu ne ñu koy xaar waa Seko Fofana waa Côte d'Ivoire neexal nañ ko barki démb laa fa gis. maa ngi gis kan waa Mali wala xam waa Guinée ñoo ngi woo jour ancien jour Nantes boo xam 1904 ba tey mu woon Nantes dem ba jeexal ñu ngi neexal ko mu ñëw gis na ko stratégie boobu nañ ko bàyyi ay kii non non déedéet Babou Diouf pare woon na pour jouer u bi yéen ko woowul lu wax dëgg am loo xamante ne dama isu dama koy wax dama koy balancer Sénégalais na jouer coupe du monde yéen nag bu lañ ñëw ëllëg ci biir histoire bi ñëw ñu ñëw rek lii gën a yomb ñun sénégalais ñu ñëw xas joué non man booy bi suba bu foolee Espagne du ma wax dara de instant yi bu gën a joué Sénégal woo ko par par stratégie rek par yeewu muus tuuti. bañ ko ñàkk yow xam nga ne kii dafa tàng sénégalais yëpp ñoo ngi saan football xa ràññee ngeen football liga espagnol saa doo fa ñëw di football ak noonu comme ça Europa League nga ñëw dugal sa neuf bi parce que moom nee dafa woo Mamadou Sané parce que Europa a mun a bay camp yi mu dugal ne assi rythme dina ñoom Sadio Mané boobu ne yii Sadio Mané ngi nii la vacances dafa ñëw yàggul man ay parents ay ay ñoo ne ma dafa Sénégal yàggul fi ñëw Sadio Mané gis Sadio Mané boo ko woowee contre Cameroun match éliminatoire coupe du nga woowaat ko mu am ñaari match officiel bu desee deux trois nga dugal ko te kii sax man gëm naa ko boo ko mayee cinq minutes mu def dara li ñu defal yeneen joueurs yi mën nañ ko defal li ñu defal euh, Alioune booy boobu noonu ñu koy waxatee axe bi Abdoulaye Niakhate Diaye booy la dañ ko woo ni ko woowee mën nañu woowee noonu booy bi Ndo non Afrique ni ñu ko woowee mën nañu woowee euh, Iliman Ndiaye bi ñu ko woowee booy la affaire de booy mooy lan on parle pas d'âge comme Kylian Mbappé li wax laa si wax Aboubacar Koyta aussi tamit sama beneen question c'était ça malheureusement dama mooy mais Aliou Cissé Aboubacar Koyta kaam dama gis ne kaam dafa nduróog kaa bu Dame Ndoye bu ne ma ah ma ne li tax ma ne kaam ak Dame bu Dame Ndoye benn la moom day taxaw fu nekk naa dama bëgg Sénégal dama bëgg Sénégal yéen nag yow en tant que coach da naan non sama attaque man sama joueur yi man la man parfois Aliou foofu laay xaw a kii woon teg moom ko parce que ah, ñun bu ñuy wax c'est pour benn stratégie derrière maanaam Aboubacar Koïta meilleur buteur championnat Belgique 7 buts am na la possibilité de jouer Belgique ku gis joueur Belgique hasard gis ngeen ne bàyyi na xaw ma ndax dina football sax Carrasco gis nga agam dem na Arabie Saoudite nga xool benn élément offensif. tu te dis que ce gars là avec 7 buts yi nii bu defee yeneen ñaari mois yu baax di continuer à ce rythme là nga yaakaar duñu ko Belgique. day dem Belgique moo tax man mooy wax ak moom di ko toon bii na naa mu ne moo yii bul ma wax bii na man Pikine laa juddoo man Sénégal laa bëgg jouer mais tamit Sénégal bu ko masul gestu bu fekkee ñun tout le temps dañ naan non am Nicolas Jackson am nañu Sadio Mané àddina mais bu continuer performance yi équipe nationale bu mag bi lay jouer donc man sur ces trois là Aboubacar Koité xëy na kat posé ko tey euh, Yvan Diouf li nga fa tontu ah euh, a Diaw lii moom Assane Diaw beeg yii dama découragé loo quoi mais quand même je vais ñàkk xam ñàkk xam information yi loolu laa jàpp quoi mais aussi tu dois être da nga wara a entouré des gens yoo xamante surtout au staff technique bu xamante cellule de recrutement comme cellule de recrutement club bi nu ñu koy amee yow nga am cellule de recrutement les meilleurs talents sénégalais nga xam ko même bo len wawul si souf nga dem gis Assane Diaw naka ah booy mu yaa ngi sama xel li nak instant yii nek di préparer Coupe d'Afrique mais dama sama projet gis na la si. gis naa ne franchement gis naa ne avenir yow mii ci nga bokk yow ak ñoom Bamba Dieng ak ak Pape Demba Diop ak euh, Mamadou Sy suñu booy yi génération boobu nga bokk on prépare une coupe du monde 2026 tu peux prétendre une place parce que ñoom Habib Diallo am nañu benn âge bi yow xale nga jeune voilà gis naa ci yow lu lu baax pour l'instant nag dama lay woo nii mais ci banc bi laa lay toog nank nank nank affaire yi loolu s'il le faut woo 28 jours nga bëgg sotti léegi mënut a nekk de da ngay jix sa sa mboq wala gerte nga xaar affaire bi nanga nanga mu màgg maanaam boo jëlee Assane Diao léegi dina la jëriñ ëllëg xëy na am na ñu dul comprendre fii ñi xam football xam dinañ comprendre c'est aussi simple donc lii laa mën a waxoon si Aboubacar Koïta bi je pense que je suis un peu déçu quand même sur euh, yeneen ñaari jours yi ma njëkk lim noonu yéen ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis sama coach nag yow yaa seetaan sama vidéo yi xam nga ne man je suis un lu bëgg lu baax ci réew mi laa bëgg moo tax may waxtaan ak yow nii et donc nii rek laa ko mënoon wax vidéo show la après conférence de presse tac ma ñëw toog ne naa def vidéo parce que voilà c' est le cœur qui parle mbokk yi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur seen football TV.